mambarankat yi tabaski ñëw na seen mambarankat yi tabaski ñëw ma taloon daaw ba jënduma duma dala ji seen mambarankat yi tabaski ñëw na maa day ma doom Ndeye Ba. ñu ngi déggante téléphone. Hmm. <laughs> Ah, yow de nga ko moom waaye moom de daaw li li ko daroon daaw laay bañ moom dal ko ren daaw de am na sens de fu na la dugg leb na sëba leb jasineer leb dàll leb parfum leb wee leb nu mu ko siy waxee sax. xef yi nii leb na ko pare ci dem ca borom xal ba waxaa rek borom xal ba ñu jël ko yóbbu ko Paris tëj ko te bëgg seewul seen kër daaw. leneen nag laa amoon lu may wax muy pël bu rafetoo muy yow muy mono muy keneen ak keneen gis nga événement laa la wax muy bépp événement xale jigéen ñi tàmm nañ bu événement bi ñëwee duñ xam fu ñu taxaw dañuy jël seen ngor rek teg ko ci palaat di ko wanteer saam juróom bu paasee nag ñu sonn am ay problème man defe naa man xale jigéen ñi duñu xalaat. Hmm. takk sa sër bi dem liggéey dara dàq ko. nee naa la ko koy mën ak ki koy jéem nekkul benn te loo xamul kañ lay jeex boo ca nekkee daa war a neex waaye buy neex tamit dañ ciy ànd ak conscience tranquille du dëgg man daaw am naa samay cinq far. Hmm? yow liggéey ca port. maa la ko wax. mais lu tax liggéey ji séeri loolu yëpp dañ ko teg foofu man waa port bëgguñu ma. yow Cheikh Fall ñëw na ba ci yow ne ma sa xarit bi utal naa ko liggéey nay dem foofu di jaay jën crevette ak lépp am xaalis mi bëgg a dee. sëriñ dama am ndoxum si te jën yooyu day génnee sama ndoxum si te dañ wax ci waxu événement bi man li ma lay wax daf maa ñor. jox naa ko sama numéro daal xam nga li ma la wax bu ma jaayee fi mu ne nii crevette day mel ni day génn sama yaram bi te loolu duma arrangé damaa jub si événement bëgguma benn problème. xamoo sa bopp ndekete. ah dëgg laa wax. yow ñoo ñoo fi nekk xaalis yi am nañ xaalis waaye man loolu sama liggéey daal. te nga nekk jigéen. sama liggéey mooy ma toog rek di joxe numéro ñu may partagé yow moom mbaa dafa indi doomu américain mbaa tubaab. doomu africain laa indi. man jombiwu ma. de romb benn moodu moodu. nee na yow yaay man lay engagé. soxna si pardon numéro bi. naa def ma na ko ça va. man ne ko balaa ngaa wax numéro bi sax dangay nuyoo ku baax nee na ku baax kooku loolu moo ko ci neex moom ku baax kem ko wax <laughs> te xamul ne ku bon laa koy woowee ndax te sëba baa tax mu ne moom dafay jóge Amérique war a jaay ay sëba waaw man ne ko man am naa sama xarit sax yu bëgg sëba si tëbëg si bi mu ne pardon nga jox ma sa numéro ma jox ko numéro bi xam naa yéen bu ma leen jaayee rek man daf may jox yenn bu may teg du dëgg nga faatu fa yàllaa wa de borom jasneer bi nag xam nga man damaa bare kenn du man maa la ko wax ko kenn du moom de maa ko fekk ni muy jaay jasneer di aaral soxna si neex nga ma de foo dëkk mën na man de fee naa dëkk Kër Massar mën naa am sa numéro mën na ko jëlal fi mu ne nii kañ numéro bi moom comme mbàjjum gerte dañ koy partager nii bu julli gi jàllee nag ku ma ci njëkkee woo bu la ko defati ma dem Touba Sandaga ci sama xarit tëyër bi Cerno Birahim ndaamal la ca daaru sekk ndaanaan xale boobu nga xam ne pusoo réer ci loxoom damaa dem benn xaritam nee na man lay coqalaas jaaykatu daal soxna si neex nga ma de ma ne ko jëlal numéro bi Cerno di am lu muy wax ma ne ko noppi sa yoon new si waaw yow ñawal sa ñaw rek ma lijjanti li ma war a lijjanti du dëgg mu ngi noonu jaaykatu soble ba ca marché Caaroy nag dama koy dama koy ñafe de. kon ba jàngatu ju moom laal la ko kej moom pare naa moom. waaye pël bi rek daa xamul nu mu koy defee awa saw lépp danga ci ànd ak conscience tranquille nee naa la yaa jamais deux cent trois loolu ku koy wax papa Mbaye gay fay. <laughs> entrez waaye yéen xanaa seen waxtaan moo neex ba may fëgg deux fois doo leen fay. doon nag yaa ko réegul kusal ni man ma jàll ci kaw. mën a làng ak yéen. maa la ko wax de. tàngaay bi ci loo la nekk. waa ci loo nekk. chance. waa kii du mama Aris. waaw maa ngi nii toog. na mu naa la de xalam jigéen raw. macha allah. puissance. ci loo nekk. yaa ngi am jàmm bu baax a baax. na mu naa la. waaw ñoo la. ci loo nekk. nii rek. naaj de laa doxe ni sonn naaj bi tàng na. yàlla xam na ne ci sama frère bi mooy tamit jaay tissu yi ba du sow. ci moom de laa demoon pour mu jox ma ay tissu ndax dafa jóge voyage. mais daal moo fa demee macha allah tissu yi ma fa fekk rafet na mais fekk ma fa sama nguu moom. Ah, parce que Getzner laa ko commandé woon couleur bi ma ko waxoon. indaale wu ko moo tax damay bàyyi ba semaine prochaine fekk yeneen arrivage ñëw ma daal di fay dem xool Getzner ba ma neex ma daal di koy jël damaa bëgg nag yéen ngeen ñëw fa mu defantee yéen yu baax. ngeen sànnee ko. Mm. yow naka ngay amé problème nga ne ma nga dem sakal te bëss sikki ji ndekete yow yaa ngi ci kasso bi loo ko mën a bu rafet ma ngi jor xaar sax yow prison nga wax dégg naa jas neen nga leb sëva nga lepp bañ na la ràpp amoo jom nag yaayoo yaay bëss bi di ñu war nga toogaat fii nag ne dangay ci ay jasneer yow da yaa ma bett yow yow ban kasso nga waxati won yow eh maman yow laay waxal de ah waxal say wax rek yow kañ tëj ko fu la neex rek nga génnee ma ci wax ji man auzu billahi mina seytaane rajim xaaral ma tuus ma ma mama aris tuus de bois de xaaral ma laal dénk mama aris de moo ñëw fi tuur ma ay wax jox ma gaam complet ne ma yow dañ laa tëjoon kaso fi nga nekkoon doon mbarante tabaski bi passé ne dangaa julli ji woon fekk julli ji woon moom mi moom ko wax la ilaha illallah yow de loolu buñ la ko waxee puissance waroo koo gëm parce que man ak yow duñu umpante waaye maman kan lañ tëjoon prison man mii man saw puloog baay ma xale bi sa fi bàjjanam ndax nu roog papaam nga ne dañ maa tëj prison yow de yéene woo ma jàmm xëyewu ma la te bu ma la gontoo ah bu ma gontowee fan nga may ma rek danga may may ma wax waroo wax maay wax yow nga ñëw fii naan man lañ tëj prison man mii min ko mi pulloo mu suusa mi siw saa gàcce maa ngi sax jaxase li may wax man pël laa xajuma ci gàcce man mi nga xam ne damay teel a xëy di guddee wàcc te soxlawu ma daray góor lu ma am sama ñaq bi moo ma ku dem prison. wax nga ba daaneel. bañaa wax ba daaneel. moytul wàccu sànq ba tey. wàccu ak gàll laay def ma gom kuy. séeréer may ma rek sànq ba tey ki moo may wax ji ngay wax ndax mel na ni communicateur traditionnel di mbéj mbéj moom mi la emprisonné kañ waxal ak ma man lu sama fekk si. yaa fekk si yaa jóge kër ak kër ñëw sama kër toog fii sama lal bi ne dëjj dëjjaa di ma tuur ay wax yow wax ji yow mi yaa ko wax man ku ma xam waa Sénégal yëpp xamee wuñ ma ay wax yow nga wax li nga xam waaye dëjjaay làmmiñ bu rëy bi nga ñëwee rek sa ràcc gu met rek sa robu rek laa xam ne doo fi wax lu baax. waa déglu ma rek xam nga yéen man damaa weex tunku ba lu ma wax rek ngeen ne kii moo wax eh. waaye yow yaa amee wax ji kañ bàyyi maa wax ji man sa xola yeneen may bëgg a énervé yeneen may bëgg a soof man maa ngi jug dem ndax kenn du ma yab si yenn ñaan ñi yëpp kenn du ma ci yab. soo dem yaa ko wax. kii xam naa wax yaa ko demee noonu moom du ko wax. na may demee ëpp la doo dem